te suba bu léegi yéen ci toog di ma xaar kon cant ak ngërëm laa leen amel di leen nuyu bu baax di leen félicité di leen encouragé seetu nuyoo bi madame la gouverneure bi ma àndal ñëw fii ci SODAV bi di nuyu monsieur le préfet et les sous-préfets du département de Nioro di nuyu monsieur le maire di nuyu monsieur le maire de la commune de Nioro maa ngi koy nuyu bu baax di ko remercier ci message bu sànqam bi di nuyu le président du conseil départemental ou son représentant du département de Nioro di nuyu honorable Dieuma Ndiaye Ba sama sœur sama xarit ku may jàppale honorable maa lay nuyu bu baax fii ci département de Nioro bu ñu demee tey fële ci cérémonie bi dinañu wax sama diggante ak yow bu baax a baax a baax di nuyu mon frère monsieur directeur général de l'APROSI monsieur Mamad Ba maa lay nuyu bu baax di kontaan ci ànd bi nga man fii ci département de Nioro malgré agenda bu chargé waaye da nga xam ne fii ma ñëw sa dëkk te ñi may seesee jigéen la ñu nga ànd ak man ci bés bi kon ñu bu baax ci kontaan di remercier tous les maires les responsables politiques imam yi chef de quartier yi maa ngi nuyu ñëpp di beneen ñëpp lu nuyoo indi nuyoo monsieur le président de la république son excellence Macky Sall di leen sant bu baax di leen gërëm ci accueil chaleureux bi ngeen ma réservé fii SEDAF bi di nuyu madame la coordonnatrice du SEDAF di nuyu responsable yi ne seraf bi madame la présidente nga xam ne moo en charge la formation des femmes fii au niveau de SEDAF maa ngi koy nuyu baax di ko félicité baax di ko remercier ñëw nag tey fii si département de Nioro commencé ko fa ay visite dem seeti chef religieux yi dem seeti fe fe promesse fa la njëkkee dugg ci dëkk bi bu ñu fe promesse defe naa jigéen tax ñu koy wax parce que ay jigéen yu jàmbaar ñoo fa nekk ñoom tamit liggéey ñu seeti leen Daaru Salaam seeti imam seeti Ndaw bu fa nekk di ko sargal moom tamit di ko ziar mujjee ki daara seen jaawo ñu demoon fa léegi di jugee fa tey ñëw fii sedax bi sedax bi nag bu ñëwee département de Nioro fierté la pour ñun ndax yaakaar naa ci 45 département du Sénégal 12 département ñoo am SEDEF am SEDAF defe naa département di Nioro desuñu ci ginnaaw ñu leen félicité bu baax di leen ci encouragé ma yëkkatiwaat kàddu yi nga xam ne madame la présidente wax na ko léegi bâtiment bi ngeen di seen seen batiment la yéen jigéen waa Nioro yéen lañ ko fi defal te def ko fi nag du pour ngeen koy xool waaye pour ngeen ñëw fi la ma bëgg a jigéen ñëpp xam ne fii mooy seen kër fi état du Sénégal tabax pour que jigéen ñi gis seen bopp ci li nga xam ne liggéey ñu renforcer ay formation renforcer leadership renforcer formation technique pour que su ñeen seen du ngeen nekk foofu parce que fii seen du jigéenu Sénégal mooy ngeen taxaw en première ligne ci kër yi ci njaboot yi waaye ngeen taxaw aussi en première ligne indi seen participation bu baax a baax économie réew mi ma visité nag exposition bu am solo bii nga xam ne daf ma firndeel ne li ma fi doon séntu gis naa ko fekk naa ko parce que xam naa ne ay jigéenu jàmbaar ñoo fi nekk liggéey liggéey bu rafet bi ma rafet rafetlu ko baax di ko magnifier parce que nag yombul dafa am exposition am exposition am transformation am transformation waaye fii ma ñëw moom wóor na yaa transformation yi fi nekk am nañu franc accompagné leen bañ information ci dàq si jàppale leen maa leen félicité baax leen encouragé loolu yéen ak ngeen nekk nag image nekk exemple jigéenu àddina bi yëpp particulièrement jigéenu Sénégal ay jàmbaar di liggéey di taxaw di produit li ngeen produit kon nag félicité baax di leen encouragé c'est nag boo déggee ñu koy wax disposition ministère de la femme daf ci am solo parce que SEDAF mooy infrastructure boo xam ne mooy porter tous les projets agenda jigéen bi ñu koy wax mooy d'abord ngeen mën a seen bopp autonomisation de la femme buñ koy wax defe naa moo nekk au cœur parce que jigéen nag li liñ koy wax lépp phénomène yëpp ay violence basée sur le genre renforcement de l'équipe yooyu yëpp la promotion de la condition féminine defe naa balaa mu war a mën nekk da ngeen mën a seen bopp te mën a sa bopp fii lañ koy defee fi lañ koy jàngee fi la ñuy renforcer seen capacité fi lañ indi ay financement formation fi la nekk kon jigéen fi nga war a taxaw fa ngeen tax il faut nga ñëw SEDAF bi kon jàpp naa ne SEDAF bi nag vision bi ci amaat vision bu am solo la jàpp ne SEDAF bi léegi lépp loo xam ne la projet la ci agenda de la femme et de la jeune fille lépp dafa disponible fii si SEDAF bi ñu fexe ba ñu am fi ay boutique de droit jàpp ne jigéen seen ay jafe-jafe jigéen ñi victime de violence ñu ko amee ñëw indi fii SEDAF ñu jël leen fi en charge jàppale leen réinsérer dans la société ñu soxla formation indi ko fii SEDAF jox leen ko fi ñu fekk ñu am comme ni ko waxee les mutuelles des femmes boo xam ne bu soxla ay financement dañuy ñëw jël si ko fii lépp loo xam jigéen dañ ko soxla daal pour seen ak ak seen yelleef ak seen condition de vie ak seen autonomisation dañ ko war a fekk si SEDAF bi loolu mooy vision bi léegi kon vraiment ñu sant bu baax di leen di leen féliciter di nuyu mon frère mon frère mon jeune frère Baskede maa ngi koy ñu ko sant moom te di ko gërëm di nuyu délégation bi ànd ak man ñëpp bàyyi ma kenn su ma limee damay juum kontaan naa ci yéen di joxe rendez-vous incha allah ci kanam fële ci place ba nga xam dañuy jigéen ñi département de Nioro pour que vraiment message yi indi mu jàll di sant bu baax di gërëm bu baax di leen félicité Kaolack monsieur le préfet du département de Nioro Mesdames et Messieurs les sous-préfets, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Conseil technique du Président de la République pour l'enfance, mon frère Bassirou Québec, Monsieur le Président du Conseil départemental de Nioro, Monsieur le maire de la commune de Nioro, Monsieur les maires des communes, Monsieur le Président des conseils d'administration, Monsieur le coordonnatrice du comité consultatif des femmes du département de Nioro, Madame la coordonnatrice du CEDAC de Nioro, mes chères sœurs et filles, leaders et membres des organisations féminines des différentes communes du département de Nioro, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je me retrouve à Nioro, Duri, deuxième étape du programme d'animation socio-économique dans la région de Kaolack Évidemment, en arrivant à Nyoroudun, notre pensée en tant que ministre en charge de la promotion de la femme va vers la, va vers la vénérable et vénérée Mandiara Bousso, figure spirituelle, et de référence éternelle pour toutes les générations de femmes et de filles. De retour de Prohan, j'ai pu me recueillir dans son mausolée en marge de la visite au de ses homonymes, Je voudrais encore prier avec vous pour que le chemin de notre pays dans la paix, la concorde vers l'émergence en 2035. Cette prière, prière dite, à féliciter, à magnifier la présence remarquable des femmes de toutes les communes qui ont bien voulu sacrifier de leur précieux temps pour participer à cette de dialogue autour des enjeux de l'autonomisation de la femme dans le département. Je suis particulièrement fière de la qualité de l'accueil qui m'est offert avec ma délégation, tout en sachant que votre belle mobilisation illustre encore une adhésion à la politique nationale d'amélioration de la condition féminine définie par son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République. Après cette expression, vous me permettrez, mes chères sœurs, de remercier le président du conseil départemental et le maire de la commune de Nioro pour les généreux messages de bienvenue qu'ils ont bien voulu prononcer à mon endroit au nom des autres maires, des autres élus et des populations. Ma très profonde gratitude va à l'endroit des honorables députés, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et des membres du Conseil économique, social environnemental, ainsi qu'aux responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Dans ce cadre, je porte une de monsieur le conseiller technique chargé de l'enfance, présent à mes côtés depuis hier. Distingués frères et sœurs, élus et responsables, comprenez ma très grande fierté de partager avec vous cette grande journée et de pouvoir compter sur votre soutien agissant dans le renforcement du pouvoir économique des femmes du département. Mesdames et messieurs, ici à Nioro, comme l'a indiqué avec pertinence la coordonnatrice du comité consultatif des femmes du département, que je tiens à féliciter, il existe un immense potentiel de talent, de créativité et surtout d'engagement chez les femmes. J'ai pu encore m'en rendre compte à travers les différentes initiatives que j'ai visitées depuis ce matin au niveau du FEPROMAS, puis au niveau du CEDAF. C'est donc pour moi le lieu de féliciter et d'encourager, au nom du chef de l'État, toutes les femmes et les filles qui entreprennent et portent des transformations positives dans leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrivent les différentes politiques publiques relatives à la criminalisation du viol, l'institution de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et l'adoption récente de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique de la femme. Aujourd'hui, je m'inscris dans la dynamique en vous annonçant une dotation de 100 millions de de financer les activités d'insertion socio-économique des femmes communes du département de Nioro. Nous avons réservé 50 millions pour le FOPREMAS et le PADES a accordé pour les femmes du département. Je m'en vais procéder tout à l'heure à la remise de l'attestation de financement qui des capacités des bénéficiaires financière avec la collaboration de l'Office national de formation professionnelle. Toutes ces ressources, j'ai mis à la disposition des organisations féminines département ce matin un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux comprenant deux kits coiffure, deux moulins à mille, des kits cuisine, des machines à coudre simples et broderie et des kits sonos. Des, deux décortiqueuses d'arachides, une presse à huile une, moulin pas d'arachide manuel, des matelas, des lave et des nattes pour le daras. Je félicite les femmes et les filles bénéficiaires des financements et des équipements et compte sur l'engagement et la détermination de ces générations pour un respect de l'ensemble des obligations attachées conformément aux principes de bonne gestion, surtout de redevabilité. Pour clore mon propos, j'atteste de ma totale satisfaction pour le bon déroulement de la journée consacrée au département de Nioro. Je remercie toutes les femmes ici présentes. Je remercie.